pour ceinture rouge. victoire pour ceinture rouge. victoire pour ceinture rouge. victoire de Ziguinchor. Bokar, il faut rappeler aux internautes qui nous suivent après trois avertissements, le lutteur est disqualifié. Oui, après trois avertissements, le lutteur est disqualifié, Par contre, dans la lutte avec frappe, c'est cinq Mais dans la lutte simple, après trois avertissements, c'est ça le règlement, le lutteur est immédiatement disqualifié, disqualifié de la compétition. Bien, bien sûr. Maintenant, je pense Boucar, c'est Yamoussar. Yamoussar, Yamohamed. Boucar, je pense que j'ai un lutteur dans cette compétition. Il ah s'appelle bon Yamoussar. <laughs> J'aime bien l'engagement de Yamoussar, Boucar. Yamoussar dans les Yamou Sarr donc un lutteur très engagé. Un lutteur technique bien sûr. Et technique, on l'a vu hier. a délivré un combat exceptionnel. Yamou Sarr. Yamou Sarr dans la catégorie des 66 kilos qu'on de l'autre côté. donc euh, ici au stade Caroline Faye de Mbour je rappelle toujours aux téléspectateurs d'Eric Faf TV et de Lutte TV que nous sommes en direct pour le tournoi du chef de l'État Yamou Sarr ngeen jàkkaar lool Dakar waaye mi ngi tudd Yaa Mouhamed Ndong moo féete ndeyjoor ay ca ñaari mbër ñu nga ca Yamou Sarr daw na jël ko ay ca wër ko wër nañ daan nañu ko de daa mel ni daan nañ Yamou de on a battu mon leader Yamou Sarr daa ni daan nañ yaamu de Yamou Sarr est battu il def na trois appuis daan nañu yaamu Yamou Sarr éliminé donc de la compétition de la compétition. Maintenant, il lui reste aussi. Il demain, la finale. La finale, bien sûr. Il lui reste la finale de demain. Demain, il sera avec nous pour la grande finale avec l'équipe de Dakar qui va affronter l'équipe euh, de Fatigue. ayca on a battu Yamou Sarr Yamou Sarr éliminé. Il a été remplacé, Bougar. Oui. Il oh. a été oh. remplacé. Quelle chute Yamou Sarr battu la plus belle des la plus belle par son adversaire. Boy bi da ko nax. Oh bi conc la jël conc bi bi. quelle chute xoolal conc bi xoolal gis nga loxo droite bi. ah moo tax amul appi la rotation de son adversaire la rotation. ce sont des lutteurs très techniques. à cause de leur compétitivité ils nous délivrent des combats exceptionnels de par leur technicité et de par leur par leur rapidité d'exécution. macha allah noonu la demee Père Pala si na Père Palla maa ngi lay nuyu bu baax a a baax di la ziare Père yegsi na jërëjëf euh, Boucar maa lay nuyu bu baax di nuyu Al Amin di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ci waxtu wi di nuyu nag ñëpp ñi nga xamante ni ñëw nañ ci drapeau chef de l'état bi waaye di nuyu tamit ah, ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci wàllu technique bi di waa TV yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di am contentement ci sama dajawaat ak yéen fii ci stade euh, euh, euh, bu Mbour bi nga xam ni fi lii nga xam ni mooy drapeau chef de l'état bi di xewee. di nuyu ñëpp di wax ni maa ngi am contentement bi ma ñëwee fekk leen ngeen nekk ci liggéey bi démb jot naa ay xibaar yu bari yoo xamante ni dañuy rafetlu seen liggéey loolu nag dafa am solo parce que nit ki lay déglu mooy sa mbokk ki lay déglu nga di ko wax li it yaay mbokkam. dëgg kon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax dafa mel nag ni am na fu ngeen tollu ci drapeau bi. ndax euh, fekk naa xale yi ñu ngi daje dafa mel ni ñu ngi ci par équipe bi. ñu ngi ci par individuel. individuel. ci individuel yi per pa la waaw ayca am na ko combat yi ne si digg géew bi am na yu nekk ci digg géew bi kay waaye nag tey euh, nii ma gisee ñii nekk fi loolu tamit euh, bari na ci li nga xam ne day xajamal liggéey bi waaw day xajamal liggéey bi waroon nañu mën a jóge ci suñu kanam ñuy mën di am lu leer waaye tableau baa ngi fi daal waaw tableau baa ngi fi tableau baa ngi fi waaw ay ca noonu la demee am na mbër yu ne ci plateau ya di waajal toujours donc ces combats préliminaires. non ñu ngi ñu dugg nañ ci demi-finale kay. les demi-finales les quarts de finale waaw pour moi. les quarts de finale pour la catégorie. 66 kilos 66 kilos. oui.